Lesson 2 Vocabulary 1 Man I Yow You Mom He Mom She Nun We Yen You Nyom They jigéen a woman ay jigéen women góor a man ay góor men xale bu jigéen a girl xale yu jigéen girls xale bu góor a boy xale yu góor boys xale a child ay xale children waa kër a family yaay mother baay father jabar wife jëkkër husband mag bu jigéen elder sister rakk bu jigéen younger sister mag bu góor elder brother rakk bu góor younger brother suba morning bëccëg noon ngoon afternoon guddi night ndekki breakfast añ lunch reer dinner